maa ngi nuyu ñëpp euh, seen tur ak seen sant euh, di fi teewal euh, ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises madame Assome Aminata Diatta ci ubbite bi nga xam ne mooy boutique bi ñuy jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci li ñuy wax vente en ligne mooy boutique 221. boutique 221 nag mu ngi jóge ci xayma bi nga xam ne moom la ñuy def pour que nit ñi ñu mun a am lu ñuy wax stratégie de du commerce électronique ndaxte tey ci xarala yu bees yi mun nañ ci def ay jaay. mun nañ si def aussi jënd mun nañ si aussi fay loolu yëpp nag dañ ko boole si benn plateforme bu ñuy wax boutique 221 te euh, njënd ak njaay boobu ak euh, bi nga xam ne moom mooy fay boobu dafa nekk loo xam ne ay sénégalais ñoo si taxaw liggéey ko du loo xam ne dañ ko jéggaani ay doomu Sénégal ñoo taxaw groupe depuis ñaari at bi nga xam ne madame la ministre dafa ne dafa bëgg ñu taxaw ci loolu pour que ñu mun a am euh, loo xam ne Sénégal moo ko moom loolu moom moo tey bi nga xam ne mooy plateforme bi moo tax ñu ci delloo njukkal ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci liggéey parce que euh, ñaari at ñu ngi ci taxaw di ci jël joxe seen xalaat ak seen xam-xam mais aussi ak seen temps euh, ci acteur yooyu euh, am na ku ñuy wax gaynde 2000 nga xam ne tey vraiment ci affaire développement plateforme e-commerce ci Sénégal taxaw na ci lool lool. te administrateur général bi moom mooy comme président comité de pilotage bi mais également yeneen structure technique yi comme waa ministère de l'économie numérique nga xam ne ñoom tamit am nañ ci solo lool. mais également ñi nga xam ne ñoom ñoo si jàppale ñi di jóge bitim réew te loolu IMOSIR teewal leen fii si Sénégal mooy cadre intégré renforcé ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne tey euh, Sénégal li mu ci am lii lu am solo la ndaxte comme ni ñu ko ñoom ni ñu ko waxee dafa nekk loo xam ne lu ñuy tuddee centre commercial. centre commercial nag da nga ci am te boutique mais di nga ci wane say marchandise di nga ci wane aussi li leneen li nga xam ne moom ay services yi ngay présenté. di nga ci aussi fekk say fournisseur ñi nga xam ne ñoom ñoo la mën a jox marchandise bi nga soxla di nga ci fekk aussi nan ngay fexee ba fay leen euh, li nga xam ne moom mooy li ñuy li euh, ñu la defal lii mooy prestation bi loolu yëpp nag bu ñu ko boolee moom mooy boutique 221 bi donc lu ñu ci mën a woote rek mooy woon nit ñi mu xamal leen ni que yëf yi yëfu Sénégal yëpp la nga nekk secteur formel comme nga nekk secteur informel ñun ñëpp ñoo bokk euh, plateforme bi te ku nekk dinañu fexe ba jege la pour que nga mun ko xam nga mun ci présenté li nga xam ne moom nga ci présenter. li ma fàttee wax ci nasaraan rek mooy euh, suñu partenaire bi nga xam ne aussi mooy UNAPAD UNAPAD euh, defa nekk kuréel boo xam ne tamit depuis ñaari at ñu ngi liggéey ak ñoom def nañ ci ak ñoom ay jéego yu bëre ci mbirum euh, Fra ci mbirum code barre ak lépp ba tey mbirum plateforme bi ñoom vraiment dañ ci liggéey lu baax a baax te dafa nekk ay ñoo xam ne ay producteurs lañu dañuy présenter ay produits. ñu nekk ay jigéen ñu jàmbaare nekk ay góor ñu jàmbaare ci mbir moom te ñu wasaaroo ci biir réew mi yëpp donc loolu daal vraiment aussi dañ ko rafetlu di leen ci sant bu baax di leen gërëm. ñu gis ne li nga xam ne moom mooy produit yàqu yi ci biir marché bi bëri na lool yéen ngeen yor euh, kuréel boobu nga xam ne wala département ministériel bi liggéey ci wàll wi pour xeex ko lan ngeen fas yéene taxawoo ci wàll woowu. waaw taxaw bi mooy taxaw bi nga xam ne moom la ñuy def bés bu nekk nga xam ne service yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère du commerce principalement direction du commerce intérieur ñu ngi ciy taxaw ci biir département yi ak ci biir région yi nga xam ne fépp fu ñu fekk ñam yoo xam ne euh, du ñam yoo xam ne war nañ ko jox ay consommateurs dañ koy retirer te bu ñu ko retirer bu dee ci biir région yi ak direct ak ak gouverneur région bi dañuy liggéey li nga xam ne mooy processus de destruction mais au tamit bu du yàgg incha allah dinañ ci ko def ak euh, ci njiital madame le ministre du commerce parce que at bu at bu nekk dañuy réunir ay euh, quantité yu bëre yoo xam ne suñu service dañ ko génne ci circuit de distribution bi pour wan ko nit ñi ko lii baaxul te dañ ko war a moytu donc loolu tamit dañ koy def benn séance de discussion incha allah rabbi du yàgg. Euh, boutique en tout cas njëriñu boutique 221 ci euh, commerçant yi lañ ko jëlee ndaxte biñ ko doon defar dañu demoon def ay jàngat ci kanamu commerçant yi yu nekk Dakar Ziguinchor Saint-Louis Kaolack ak euh, Diourbel ñu dem waxtaan ak ñoom laaj leen ci wàllum xarala yu bees yi lan moo leen manqué pour ñu mën ci dugg di ci jaay bu baax ci loolu foofu la ñu waxee ni que pour ñoom amuñu njëgu par exemple di créer ay site en ligne dafay cher ci ñoom donc ci la xalaatee defar benn boutique benn plateforme boo xamante ne ku ci nekk boo soxlawee ubbi sa boutique da ngay dugg rek remplir benn formulaire après def say photo dugal ci biir commencé jaay donc noonu la ñu euh, suñu objet ñun li ñuy viser à terme mooy commerçant bu nekk Sénégal dañuy utiliser terme commerçant mais. li ñu bëgg a wax mooy képp kuy jaay muy commerçant producteur transformateur képp koo xam te ne am nga looy jaay nga mën a am à côté de sa boutique physique maanaam euh, sa boutique bi ngay jaayee ci biir marché bi wala ci benn centre commercial wala ci koñ bi nga mën a am à côté sa site internet boo xamante ne di nga fa mën a di nga fa mën a jaay en même temps parce que loolu lu tax mu am solo parce que dafay tax commerçant bu nekk Saint-Louis dina mën a jaay client bu nekk Kédougou parce que ñun ci suñu plateforme bi dañ leen di mettre à disposition ay livreurs yoo xamante ne dañuy def dañuy wër Sénégal bi yëpp pour képp ku soxla ay colis dañ ko récupérer yóbbul la ko ba fi nga ko soxlawee donc euh, loolu la ñu en tout cas lañ ci lañ ciy wut e di ñaan suñu mbokk commerçant yëpp ñu ñëw dugg ci suñu plateforme bi tey jii plateforme bi ubbeeku na léegi ku mu neex mën nga inscrire am na formulaire bu nga xamante ne da nga koy remplir fi mu toll nii amagum nañu 600 formulaire 600 commerçants yu inscrire gum te ci 600 yooyu 200. la ñu validé ndaxte ku ci nekk booy inscrire il faut nga am NINEA ak registre de commerce ak contrat bi nga war a signé donc yooyu dañuy def euh, dañuy xool ku ci nekk sa dossier balaa ñu lay euh, validé. ñu gis ni kaaraange gi jëm ci wàllu jaaykat bi ak livre bi si sàmm ngeen. waaw léegi bu fekkee tamit kaaraange gi jëm ci jëndkat bi tey bu fekkee jënd na. Mhm. te livré wul ko li mu jënd tey nan ngeen xalaat. loolu en fait dañ ko gérer parce que ci biir plateforme bi ku ci nekk da nga am sa portefeuille. donc jaaykat bi day am portefeuille am livreur bi am portefeuille am client bi aussi am na portefeuille am léegi client bi bu fayee euh, tant que livré wuñ ko euh, commerçant bi du jot xaalis bi livreur bi du jot xaalis bi léegi bu fekkee ni commerçant bi ñëw nañu ne ñu ni que commandé naa mais boobu ba léegi livré wuñ ma dañ koy laaj da nga bëgg ba xam ñu continuer sa livraison bi wala da nga bëgg ñu remboursé la bu fekkee dafa bëgg ñu remboursé ko ñu delloowaat ko xaalisam ci compte am bi mu ci portefeuille am bi mu am ci suñu plateforme. gisoon nañ ay liggéey ci wàllu plateforme euh, ci wàllu e-commerce. Euh, ñun suñu différence mooy ñun suñu plateforme ay cantine su ma ko mënee misaal ay cantine marché lay doon daal <laughs> noonu laa ko mënee misaal parce que ku ci nekk boo xasee ba inscrire da am sa sa sa boutique bopp boo xamante ne say produit bopp ñoo ciy nekk donc loolu la loolu mooy différence bi.